Assalamualaikum, warahmatullah wa kanal waa TV assalamualaikum mbokki téléspectateurs yi tay nak ñi eh, ngi eh, daje ak eh, kangam mu melni dañu kanal banlieue tay dafa sensé doxaline parce que dafa taxaw buntu Pikine jël oto wàcc xombal fayaat téeméer ak ñen fuku jawali ke bu ñuy wax Kër sambakan Kër sambakan ñu fekk fa ben ndanan ndanan lañ koy woyé Euh, Cheikh Ndiaye lay wuyu waye mu mel ni tur bi rek waxuñu jëmm ji kan moy Cheikh Ndiaye. Ah, merci beaucoup monsieur Diop euh, di nuyu ñëpp ñuy suivre sen télévision bi di leen remercier ci invitation bi. Euh, Cheikh Ndiaye ben ndaw la bu dëkk Kër euh nek nekk kat de formation nek également personnalité politique nek également candidat ci prochaine élection locale yi. macha allah présentation bi am na solo euh, loolu maanaam day wund rek li nga xam ne si ne mooy turu Cheikh Ndiaye waa Cheikh Ndiaye bu ñu doon ñëwal ci tuuti ci jëmmam parcours am parce que bala ngay dem bay am ay motivation nekk euh, maire euh, am na ay jaar-jaar yoo jaar yoo xam ne si ne am na benn empreinte bu mu def Cheikh Ndiaye bu ñu doon ñëwal ci parcours am fan la jaar fan la jànge waaw parcours bi moom mën nañu ni gudd ah, lan <laughs> c'est modeste euh, Kër Samba bi ma juddoo euh, yaroo fa màgg fa foofu laa dalee d'abord euh, alxuraan mm-hmm. mais soriwuma ci un an laa def gën dugg arabe également def un an door dugg école française mm-hmm. Kër amee fa entrant sixième dem Thiès CM Djibril Diaw bu mm-hmm. nekk marché Grand Thiès amee fa BFM demaat lycée Malick Sy amee fa baccalauréat L2 dem fac droit def faculté de sciences juridiques et politiques def un an cartouché Dans le concours volontariat de l'éducation nationale dem Louga EFI Bouna def euh, formation génn ñu if ma de Diourbel bu ma amee sama CAP le concours bu ñu naan euh, normalien instituteur université ba am master en philosophie option philosophie morale et politique après moi dem école normale def KS génn professeur d'enseignement secondaire ñu affecté je def fa trois ans si lycée bi le concours de recrutement des élèves inspecteurs actuellement en formation entre autres formations defna euh, gestion de projet defna entrepreneuriat amna également master 2 en journalisme communication. Machallah, donc donc parcours bobu du ndaw riche na euh, dina fésal rek li nga xamné ci si ne ji bu ci walum politique. Mm-hmm. Cheikh Ndiaye lan moko ko motiver ci walum politique. ñakul tam am na benn appartenance politique. waaw politique moom peut être euh, man euh, buñ ñu Cheikh Ndiaye rek Kër Samba ñi ma xam xëy lépp si Idrissa Seck la ñuy dem maanaam parti réew mi laa mës a milité benn parti laa mës a am réew mi la tudd euh, depuis M6 ci laa doon milité li taxoon may milité aussi mooy ay idée yu Idrissa Seck ak ñoo ma convaincroon may ma koy soutenir ba ñëpp xam ma foofu si Kër Samba kan ci cohérence bobu dal xamna ni ñu bari bëri soos dañ ma sax ba tay bi ma wax ak yow ni même si Idrissa que rejoindre na Macky Sall euh, muy lo xam aussi peut-être apprécier wu ma à sa juste valeur mais téwul maa ngi resté parti réew mi ba légui même si man ak wa APR local le courant ne passe pas politiquement parlant mais parti réew mi dal fofu la mës politiquement. parti réew mi nga bok parti réew mi milité na yow do milité. Non, rejoins rejoindre l'APR, mais franchement, je ne rejoins pas l'APR. Je suis Réumi, je suis Idrissek, mais je ne suis pas APR Réumi. ok amna na APR Réumi, aper am APR euh, APR rek voilà. voilà donc kon mën nañ japonais, ne réew mi rek. ñu dellu Kër Samba Kane. Mhm. di commune. Mhm. Kër Sambakan, fan moy Kër Sambakan? Kane. waaw Kër Samba benn euh, commune la euh, communauté rurale la depuis 1976. Euh, ci acte un de la décentralisation bi bi ñëwee ba acte trois bi en 2014 ñu def ko commune euh, mu ngi nekk département bambay arrondissement Baba Garage boo fay dem comme ni nga ko waxee boo fiy ñëw da ngay ñëw ba xombol nga wàcc jël sept place mu jël tali tubaatul bi bu wàccee tubaatul jël tali bu xonk bi ba biir kër Sambakan tali bu xonk moo fa bu xonk ranran bu méttee méttee métti vraiment ku fa jaar sax seeram day daw ak kër Sambakan tur bi fi mu egg heure bi waroon na mën a fekk vraiment mu am tali bu ñuul mais malheureusement Euh, amuñu autorité yo des am nañ réseautage des wala ñu am des considération bi auprès de l'État pour ñu mëna am tali bu ñuul ñu ngi koy ba kon Cheikh Ndiaye buñ ko déggo ko politique. côté politique euh, le maire en présence def ans de règne. le maire. Khalid Ibrahim Fall fa mhm. ans de règne parce que il est euh, élu président du conseil rural depuis 1996 en remplacement de Ndongo Ba. Mhm. Euh, boo xoolee 96 76 bi ko Samba nekkee communauté rurale ba 96 bi ko Ibrahim Fall di jëlee ñetti président conseil rural ñoo fa jaar muy d' abord Touré après Medoun Faye après Ndongoba. Ba ñoom ils ont fait 20 ans boo les seen ñetti mandat Ibrahim Fall à lui seul il a fait 26 ans. gis nga comparaison quest gis naa comparaison à lui seul il a fait 26 ans ñetti ñee boo boolee seen mandat moi 20 ans 76 ba 96 mom 96 ba 2020 2022 du moins. donc 26 ans contre 20 il y ans donc yàgg na fa ba paré euh, soxé gi euh, moy lolu manqué na infrastructure gestion bi lérul réalisation yu concrète yu mën a teg loxo yoo xam maire moko fa indi aussi vraiment mënuñu ko fa lim wala bok du bare. ci loolu sax la bëggoon ñëw parce que ku fa am 26 ans de règne. Mhm. mën naa ne am na benn ñàkkul am na benn considération bu mu am ca commune ba. Mhm. wala am na liggéey bu mu fay bu mu fay euh, mëne bu am doole. Euh, waaw peut-être bu njëkk ba nit ñi euh, intéressé wu noonu dëgg dëgg dëgg si politique moom dafa ñëw rek presque nekkoon fa di régner en roi di aussi def achat de conscience pour régner. Euh, que ça aussi amoon si moom yaakaar parce que gisoon nañ ni peut-être bari nay connaissance loxom gudd lim laaj lépp jox nañ ko ko laaj na président conseil rural jox nañ ko ko. laaj na maire jox nañ ko ko. yóbbu nañ ko Sénat yóbbu nañ ko conseil économique social environnemental tay tay yóbbu nañ ko assemblée nationale. ndombay tànk yeb sëñ Kër Samba jox nako ko Khalil Ibrahima Fall kon tay mom mo amel Kër Samba kan njukkal mais pas le contraire mais malheureusement que Samba gissul bopam ci réñu ñu Khalil Ibrahima Fall. alors ci fofu sax lay ñew parce que dañu leen di wax dégg ngeen di wax gestion gestion gestion de la commune. Mhm. Euh, Kër Samba Kane dafa am ay ressource yoo xam ne si ne moo waral xañ na ñuy wax ay gestion. exactement bu ñu naan gestion man ñetti rajo yi dañoo war a tënk une gestion d' abord toute gestion doit être fondée sur l' xam ne moral xel ko nangu. Mhm. bi ci des mooy gestion dafa war a euh, am transparence mhm. amul Kër Samba Kane bi ci des mooy gestion dafa war a tegu ci compétence amul Kër Samba Kane. manque de transparence bi mooy benn euh, ressources yi mel ni carrière latérite bi nekk njarnu ak Kanda ñu koy exploité. contrat usine entreprise yi koy euh, exploité contrat yi ñuy signé ak maire bi jëm ci walu permis de stationnement kenn mësu cee teg maire ak soxnam di secrétaire municipal ñom ñaar rek ñoo xam euh, les clauses de ces contrats là. te carrière bi au sein de la. au sein de la commune sama Kane la nekk entreprise yi koy exploiter mën naa la cee limal CRBC euh, bi defal autorité la Touba. Tina Pao Enan Chine mhm. El Mansa Jean Lefebvre Seydi Jamil Ecotra yenen yenen entreprise yo xam national international dañ fay tib di defar yenen tali te ñun mënuñoo am tali mais également euh, contrat yi ñu signé ak ñom pour xam ñaatay dugg ci permis de stationnement ci dëkk bi ñun mësuñu gis contrat yoy également soxé gi euh, manque de transparence bi moy entreprise bu ñëwee di tib dafa wara négocier ak population bi luñ nane responsabilité sociétale d'entreprise. tout à fait parce que pour ñu nous ñu dàmp ñi nga xam ne ñu ngi loru ci tibb googu ñuy carrière bi. bi ci également moi dafa war a am technicien yu ñoo def lu ñu étude d'impact environnemental pour xool exactement gàncax gi ñu yaq lan la ci nit ñi di loro ba war leen ci fay ndampay mais loolu lépp dëkk bi amu fa loolu yëpp ay euh, lubal. benen manque de transparence bi aussi ma le fofu peut-être il y a manque d'information parce que dañ doon xex ñun ba dafa ñëwee ba léegi budget bi ak euh, rapport yi fay am ak réunion yi fay am yëpp dañ ko war a publier. Mhm. parce que euh, loolu la code bi wax chaque mhm. fois boo defee réunion décision boo mën di jël tu dois le rendre public à la porte de la mairie. mais ren jii 2021 ñun ñoo xeex ba ren mooy première fois ñu gis budget bu ñu affiché ci buntu mairie bi muy xeex boo xam ni suñu combat la ñun suñu victoire la ñun ren gis un budget boo xam ni approuvé par le préfet ñu affiché ko ci le sous-préfet ñu affiché ko au moins ci. jàpp euh, ngeen budget fiable budget bi moom euh, mën nañ budget moom prévision la hein. budget moom day prévision la mais jàpp naa fiable na parce que qui koy def muy euh, le représentant de l'État muy sous-préfet bi ñu koy de passage il fait vraiment son travail. parce que même bu conflit amee ci mairie bi entre ci réunion conseil municipal yi. toujours mooy jour rôle médiatique mais également toujours il tranche à sens juste valeur su maire jaarul yoon moo ko naan carrément li nga wax du noonu ñi jaar si yoon. vraiment il joue son rôle waaw waaw le sous ngi def liggéeyam ni mu waree. alors euh, ci cadre boobu la ñu parce que Kër Samba yaa ngi koy wax léegi bu ñu jógee xombal jawali Kër Samba Kane. Mhm. mën nañ ne tubaatul ba Kër Samba Kane. Mhm. am bu xonk la. Mhm. ndax yéen en tant que ay jeunes. am ngeen benn mouvement boo xam ne taxaw ngeen ci ngir xeex ngir ñu defaral leen seen tali. avant ñëw ci cadre amoon nañ mouvement bu ñu tuddee euh, forum de Kër Samba Kane Modou Seck sama doomu ndey ubbi woon ko. lañ ci doon xeex lépp lu jëm ci gestion mairie bi doon def également nu ñuy def pour euh, contrecarrer les mauvaises gestion du maire euh, forum bi jot na ci initier ay euh, jël ay initiative jot nañ ci def aussi marche ci marche boo xam ni c'était un mouvement un peu spontané ban jàppoon ci sunu xarit Pape Birama Wade pour ñu euh, defar tali bi à part ça am na également beneen mouvement bu Abdoulaye Aziz Fall ubbi tuddee ko suñu carrière suñu yoon boobu aussi bëggoon nañ def marche mais mbas mi moo taxoon sous-préfet interdire ñu ko ñu koy renvoyer xam naa Euh, incessamment dinañ ko doxalaat. alors tey structure yooyu amul benn connotation politique benn benn mouvement la rek boo xam ne si ni mm-hmm. dañuy lutter benn pour benn benn. benn waaw benn cause rek euh, boo xam ne moom lañ bëgg a réaliser après ñu jàll. peut-être forum bi moom am na un peu connotation politique parce que ay parti politique ñoo si def également forum bi également day contrecarrer le maire en place mais suñu xeer suñu yoon moom il est apolitique euh, sur tous ces mouvements jëmul lu dul ci euh, ñu talil ñu suñu ñu ñu ñu goudronné ñu suñu tali boobu ci suñu xeer yi ñuy exploité foofu. alors ci parti politique yoy nga wax jëmale ci forum bi sax ci lañuy waxé mhm. parce que Cheikh Ndiaye moom candidat la. Mhm. Euh, fas yéene mhm. ci élection yi ñu dëgmal. Cheikh Ndiaye motivation sa candidature. lan la ci wax. waaw sama motivation moy d'abord je pense que ça on doit avoir un maire jeune. Euh, du sax un maire jeune mais une équipe municipale jeune parce que dañu wara fal ño xamné ne ay natango lañuy doon durus kenn kenn du ragal kenn ndax alalam wala ndax euh candidat ba paré gis nañ suñu morom ño fi nous ay commune commune nga xamné ño fi gëna dox ñi gérer dañuy am mais également dañuy que ay en activité am des visions à long terme day am comme si ki nga xamné si bi wala non amul jangmi parce que des fois réunion conseil municipal jël ay il est xam ne nii sax ay position yoo xam ne da nga xam de la part de euh, euh, d'un président de l'exécutif local vraiment njàngi mom mom amu quoi té chaque année budget bi dañ ci prévoir lo xam ne dañ ci wara former maire bi toujours dañuy am rubrique bo xam dañ la formation et pour renforcer les renforcer capacité maire même code bi prévoir nako code bi prévoir na maire bi ak conseil municipal yi adjoint au maire renforcer ses capacités pour mener face à la gestion des collectivités territoriales mais maire il est tellement limité sur le plan intellectuel il ne maîtrise pas le code général des collectivités locales il est limité sur le plan intellectuel il y a encore ci waxe moy ko euh, xamni ci depuis 26 ans mhm. mi ngi régné mhm. euh, ci niveau intellectuel am na mhm. xanaa dafa noog population waaw bu njëkk comme ni ma ko waxee rek dañ ko xawoon a bàyyi muy def lu ko neex boo gisee ma naan dañoo waroon fal jeune. Mhm. maire bi bi muy laaj conseil rural bi ñu tolloog moom wala bi mu nekkee président conseil rural ñi naa maasee woon ak moom jamono tolloog moom euh, mhm. ko bund xataaloon comme ñun ko bund xataale kon moom di egg si fii mais ñooñu dañoo raté seen vocation ñi maasee ak ñoom mhm. peut-être xamuñu woon enjeu yi moo tax ñun ñu bëgg a fal koo xam ne nii tey du yàpp. conseil municipal yebal go xamni day tok def lu ko neex parce que gaay yi dinañ ko sañ ñëw xool ci biir bët nako fi nga jëm du fofu am ni ci ak yow comme ça mu bàyyi mais c'est le contraire mais bi ñu àndoon ak mom dañ ko bàyyi mu def lu ko neex kenn amul won euh, peut-être audace ñëw contrecarrer ko wala sonal ko wala xatal ko et cetera maanaam amul won opposition bu ko bu ko bu ko buntu xataal léegi nak loolu lañ bëgg xex actuellement nag ñi yew nañ ñi ngi wër def ñun le tour des villages mais ñu leen di conscientiser ñi ñu commencé nañoo xam xaalis bi muy joxe fan la koy jëlee

bu ñu am na feneen fu ñu mën a féete en tant que mag en tant que parcours bi mu def ñu responsabiliser ko foofu peut-être alors prise de conscience bobo, amna solo de la part de la population Cheikh Ndiaye mon moom moo fa candidat. non Y na un candidat wala amna na ñeneen ñu yéene. opposition bi am quatre candidats il y a Abdou Sega ñaa ma koy ziar diko jalé jaale yaayam ji génn aduna barki Demba Ndiaye Mom candidat au PDS la won. Mhm. depuis 2014 sax d'ailleurs mo nekkon deuxième ci xal Ibrahim Fall. il y a également Moussa Ndaw man ak moom ñoo andone ci la nekkee man conseiller municipal mom tam candidat deuk Gandal. Mhm. il y a également Ma Ibrahim Niass nekkar sama collègue euh, ci formation école normale dëkk Gol moom aussi euh, candidat la ñu ngi doon waxtaan suñu biir nag pour xool nu ñu amee benn candidat mais ba léegi nii euh, amagul résultat. alors ci foofu la ñuy ñëw. coalition. Mhm. du day faral di am. saa su nekk. Pour un candidat taxawalee tëgg seen bëndam comme un ñëpp homme. objectif ngeen am ont lan mooy xeex ki nga xam ne qui ne tey depuis 26 ans. La euh, coalition un euh, sujet pertinent mm, si si coalition c'est très pertinent mais aussi il y a les les ambitions politiques il y a les enjeux il y a des fois da nga a ba décisions parce que nous di travail ci sa candidature presque ay année nous à deux mois des élections ñu ne renoncer au profil d'autres choses. Je ne nañ pas sax reprocher yenn yi parce que déjà man mi am na ñu candidat maire bi am bu tey su ma doon renoncé naa jàppale wala jàppale dañ ni non li lañ xamone xamone nañ ni maire bi da ko guerre wala xamone nañ ne amul fit bi et cetera mhm. ñeen ñi aussi nangul nañ leen seen légitimité candidature parce que gisuma ben commune Sénégal bo xam ni opposition ben candidat la def mhm. même au niveau national gis nga kan euh, coalition yi gars yi dañu and ba si yàgg ñu euh, tàggoowaat mais man sama walu bop dal tàndal naa loxo kep ku dekk Kër Samba té changement ak développement ñor la tànd naa la mais à tous les jeunes leaders ak tous les acteurs politiques de la commune ñu demee ne ay ñom Talla Kayré ñu demee ne ay ñom Massamba Ndour ay ñom Aliou Sarr ay ñom Djibi ñu ñep maa ngi leen di tendre la mais pour ñu andi liggéey ñen ñi ñew nañ mais ñeneen ñi des na pour ranger wu ci côté kenn euh, bon pour l'instant je ne pense pas que ça soit à l'ordre du jour waxuma loolu sax mais en tout cas buñ ñu ma wonee un candidat bu ma gëna baax profil gën ma représentatif au niveau euh, communal pare na pour ranger ci ginaaw parce que man dama japp que ni yeen comme ben combat ngeen di mener di mhm. combat bi mom yaakaar naa ni bu fekkente ne réussir ngeen ko c'est la victoire de tout le monde. Mhm donc est ce que tamit loolu tamit nekkul lo xamni ne lu am solo lay do c'est si c' est l' idéal moom am ben candidat mom c'est l'idéal mais candidat bi aussi dañ ko wara a ci ay euh, considération yu bari ban moy profilu candidat bi lan moy parcours lan moy motivation am fan la jaar est ce que réellement buñ ko jiitalee war na mën jël commune parce que tay doon ben bu taxee ñu fal Mbassou Diop am na ñoo xam ni bu Cheikh ndjay nekkee candidat buñ naree fal Cheikh ndjay il préfère ñu falat Khalil Ibrahima Fall kon koku boko xamé unité bi aussi da nga ciy war a teey bu baax a baax a baax moo tax ñu war a xool candidat bi ñu jàpp ne moo gën a baax profil wala moo ëpp ay chance ndax ku nekk da nga am ay atu ak ay faiblesse ñu xool ki ëpp ay avantage ñu jiital ko ñi ci des topp si ginnaawam ñu encadré ko mu dem Ah, machallah solo trop mu melni ci entretien bi. Mhm. Euh, Cheikh su dafa am mot de la fin. Mhm. lan mot de la fin je lance un appel à tous les jeunes du Sénégal en général et tous les jeunes de Kersambakan en particulier ñu ñëw impliqué ci combat parce que c'est un combat de les citoyens de Kersambakan il est temps que Kersambakan goûte à l'ère du changement il est temps que Kersambakan bénéficie d'infrastructures sociales euh, sociaux de base. Euh, lu mel infrastructure sanitaire infrastructure scolaire routière yooyu y a da koo sooxee da koo il est temps ñu am maire boo xam am na réseautage maire euh, développement territorial lan marketing territorial mën a indi des partenaires mhm. yu investir ci dëkk bi mhm. au bénéfice de tous les euh, habitants de la commune de Kër Si nous fu sunu dag bi communautaire bi nekk ginaaw kayre ma paté gis nga li fa xew. dag boobu rek war na mëna yor département bambé buñ ko exploiter à sa juste valeur. donc maire bu ko mëna exploiter lañ bëgg maire bo xamni intérêt que Samba moko ko ñor mais pas son intérêt personnel. mais ñun amuñu maire amul transparence bon dag bi ma du projet maire projet président de la république la. peut-être du mëna amul transparence mais en tout cas amul volonté politique. dañ koy politiquer rek tok ci plateau télé yi wax parce que Samba kan may rappeler ni bokku na ci les premières.

adjoint au maire nee 1800 hectares kenn xamul quel est là euh, le bon chiffre euh, exactement euh, délimité wuñ ko waxuñu la fii la commencé fii la le kon loolu lépp ay problème la yoo xam ne exploiter ñu doon exploité suuf si exploité wutuñ ko te généré wul benn revenu absorbé wul benn emploi kon loolu également problème la boo xam ne nii bëgg nañ ci ay éclaircissement alors donc loolu leer na mu mel ni Cheikh Ndiaye la na résumé que situation bu Kër il y mm-hmm. jox ñu ay motivation politique mm-hmm. nekk tamit candidat pour les élections loolu am na solo loolu ñu ko remercier ci teew bi nga xam ne si ne teew na ko ñëw ci canal banlieue canal banlieue déplacé wu dem ci dëkk bi nga xam ne si ne moo di Kër Samba kan ñu leen di waxaat naan leen tey ñi ngi daje woon ak ndaw jeune boo xam ne si ne ku engagé la ci wàllum politique waaye jaar-jaaram également wone na euh, moom mooy kan Cheikh Ndiaye la ñu àndaloon fii ci canal banlieue TV di leen ziare di leen gërëm di leen ñaan ngeen continuer di ànd ak seen programme Canal Banlieue TV présentation Mbassou Diop la ñu àndoon ci ak suñu technicien bi Eliman Cissé ak Imam Alune Jai, jaajëfal nañ leen. merci